baabul li ab bunt la bu aju ci allihaan li wax rëbbonte rëbbonte alquran da ko tudd ci njëlbeenu suuratu nuur walladina yarmuuna azwaajahum ak la ca topp rëbbonte mooy waatoonte ci kanam yoon bu jëkkër ji waxee ne gis na soxnaam muy njaaloo soxna sa weddi ko wala jëkkër ji jabaram ëmb mbaa mu am doom mu ne juru ko soxna sa ne moo ko jur loolu mooy indi waatoonte ci kanam yoon ñu koy tudde rëbboonte ñu daal di teel a seetlu foofu ne góor lam sañ a wax ne gis na soxnaam muy mooy yàlla muy njaaloo séqu ci nag bu gisoon koo xam ne séq ñu ab say séq ñu dara jaambur képp la ci moom bu ko waxalee njaaloo te kenn xamu koon ci njaaloo doon sax wóor na ko ni bëtam la ca tegit bu koy wax rek ñu war koo caw caw ñu wax ci yoon ndax bañ ko yàq derub jaamur ci kaw rek tooñ ndax buñ bàyyee ku gis rek kuy njaaloo doonte kenn nga daal di sañ wax ne gis naa diw muy njaaloo kum neex nga jekki-jekki mere kenn rek mbaa nga bëgg a yàq ab deram daal di ne gis naa ko muy njaaloo dem naa dem sax ba jigéen ju mooy yàlla ba ëmb bu sañ jekki-jekki wax ne diw moomu ëmbal lu may diw moomi xas nañ ko xam ci dox tànki ñaawteef mbaa mu wóor ko moom jigéen ji ne bu nee moomu ëmbalit du ko naqari ndax waxtaan na caag moom ba mu ko ne ba ni mu nga tudd sama tur waaye buñ bàyyee rek ku ëmb daal di sañ wax ne diw moomu ëmbal kon ku mu neex nga ëmb rek daal di yàpp kenn waxal ko ko mbaa ñu fay la alal dafa la loo bëgg rek nga daal di moomale ëmb boobee koo xam ne bokkut ak ka la ëmbal bu nee diwuma ëmbal rek te diw moomee xam ñu ko ci yenn ñaawteef ci lu mel noonu nanguwul ne moo ko ëmbal bu yoon dee dox ñu war a caw jigéen jooju juróom ñett fukki yar ndax bañ rek yàq derub jaamur ci lu wóorut lislaam li nga xam ne moom la aare derub nit ci wàllu njaaloo dafa yéeme lool ndax njaaloo moom ñeenti seere yu maandu matale safiya gisandoo ci wenn waxtu bokk nuñ gisandoo gis bu wér a wér bi ca sart yëpp dajee daal ñeent ñooñu gisandoo ko lañu dee nangu seeni seere ñoom ñeent waaye ñett waaye lu matul ñeent mbaa mat na ñeent waaye nañu sàkkoo ñu gise na mu matee na danaa matiwut ñu wam di daal di caw caw yi yoon ndax jàpp ne ñu nga yàq deru jaamur mu ne bu jëkkër ji tuumaalee soxnaam ne dama koo gis muy njaaloo mbaa soxna sa ëmb mbaa mu am doom mu ne juruma ko soxna sa miim kon dañuy ñëw ci kanam àttekat bi góor ga waat la mu wax soxna sa waat miim la ko jëkkër ji tuumaal doonte nag sëy ba yoon nee na seen sëy bi baaxut it du tee waatoo gii moom dana am bu fekkee ñi la demee mu ne nag jëkkër ji balaa mën a wax ne sama soxna si gis naa ko muy njaaloo day fekk soxna sa nekk ci buumu sëyam mbaa mu fase ko te idda ji jeexagut waaye jigéen joo xam ne moom tëkkagu ko bu ko waxalee njaaloo ñu jàpp ne dafa yàq ab deram daal di koy caw moom góor gi juróom-ñett fukki yar ndax mu bañ yàq ci derub keneen bu fekkee ne it soxna si ci buumu sëyam la nekk mooy takk na ko waaye dani ko baala tëkkagut laa la gisoon ngay njaaloo mbaa gannaaw ba mu ko fasee ba idda ji jeex mu door naa ko gisoon naa la ngay njaaloo yooyu yëpp dañ koy caw moom góor gi juróom-ñett fukki yar ndax la mu yàq derub jaamur mu jigéen joojee faaw rek soxna sa day nekk ci buumu sëyam mbaa fase na ko sax waaye idda ji jeexagut waaye lu mu ko waxal ci wàllum njaaloo te booba takkagu ko mbaa gannaaw bu idda ji jeexee di jàpp ne yàqub der la daal di koy caw juróom-ñett fukki yar lu may nag ñu xam jigéen joojee ci dox tànki caaxaan su fekkee mas na koo def ba ñu xam ko rek du ñu caw góor ga caw yi xaste ndax bala ñoo caw kenn caw yi xaste ka mu xas di koo xam ne mës ta yàq ab deram ba ñu xam ko ci njaaloo waaye waxal njaaloo koo xam ne def na ko ba ñu xam ko ca moom géesu ca caw kenn day dellu ci leen doon leeral léegi di wax ne bu soxna su nekkul ci buumu sëyam nekkul ci iddaam bu ko waxalee njaaloo rek ñu war ko gittan moom góor gi ndax yàq ga mu yàq derub jigéen joojee li tax nag góor mën a waat ci kanam yoon ne sama soxna si gis naa ko muy njaaloo moom góor gi bu dee njàccaar maanaam gumbawut day wax ne sama bët laa ci teg sama soxna si di njaaloo doonte dana sax sawukaay góor ga demutoon ci sawukaay jigéen ji ca bunt suuf ba la ko doon dugal it mook mu ne daa gisoon sawukaay góor ba mu dugg ca sawukaay jigéen ja ñoo yemoo dana war a waatoon teeg moom ci kanam yoon bu jëkkër ji doonee gumba nag du mën a gis ak bëtam waaye bu ci amee lu ko wóor ni ki làmb daj mbaa dégg ci noppam dégg koo xam ne wóor na ko ne am njaaloo la mu daal di rëbboonteeg soxnaam soosu mooy waatoonteeg moom ci kanam yoon bu jëkkër ji waxee ne gis na soxnaam muy njaaloo mbaa bu dee gumba mu ne wóor na ma ne njaaloo na soxna sa weddi ko di daal di waatoon ci kanam yoon kon buñ ca tegee diir boo xam ne mat na gën jaa néewi ëmb te gën jaa néewi ëmb kat jàpp ko léegi léegi mooy juróom benn weer yu manque ci juróomi fan jàppal ne aqallu amadil xamli mooy sittatu ashurin illa xamsata ayyaam saa boo déggee ni tuuti rek gën jaa néewi ëmb nga xam ne faawul ëmb gaaw gaaw mat ko du mën a ñàkk mooy juróom benn weer yu manque juróomi fan bu jëkkër ji waatee ne sama soxna sii gisoon naa ko muy njaaloo mbaa wóor na ma ne njaaloo na ñu teg ca lu mat juróom benn weer yu manque juróomi fan mbaa mu ëpp loolu soxnaam soosee am doom joo xam ne mat na sëkk manque wut kon dañu wax ne du doomam juru ko waat dama waatoon ci kanam yoon ne gisoon na ko muy njaaloo mbaa wóor na ko ne njaaloo na dañ teg ci diir bu toll nii mu door a am doom doom ju mat waat gam waatoon ci la ñuy xame ne doom ji juru ko kenn du ko ko bàyyale ci yoon kenn du ko ko bàyyale ci yoon bu waatee ne gisoon na soxnaam muy njaaloo mbaa bu dee gumba mu ne wóor na ma ne njaaloo na ñu waatoo ci kanam yoon ñu teg ca nag diir boo xam ne ëmb am fa doom xaju fa ni kii ñu teg ca yetti weer mbaa yent soxna sa am doom dañ koy wax ne ko kon yaa ko jur ndax ndegam boobaak léegi tàmbali fi ëmb am fi doom xaju fi te yow la nga waatoon mooy gis nga ko muy njaaloo kon lii da koo ëmbi woon ci yow njëkk nga di ko gis muy njaaloo lu may nag mu ne daa koo seetlu woon ba mu wóor mu ne ëmbut te gannaaw ba ba baa koy gis muy njaaloo jotiwul faak moom kon xam naa ne lu mu ëmboon la feneen waaye bay kowul ci man te gis ne diggante bi ba tey mat na juróom benn weer yu manqué juróomi fan baa mëpp ko ba tey ñu nangu la mu wax ne doom joojee du doomam ndax ne laablu woon na ko mooy seetlu woon na soxnaam ba mu gis regal muy ñu wax baaxub jigéen mu wane ni moom mi ëmbut gannaaw ba mu gis ko muy njaaloo ba waatoog moom ci kanam yoon ñu teg ci diir boo xam ne ëmb xaj na fa muy juróom benn weer yu manqué juróomi fan baal ko ëpp di sukkandiku ca laablu ba mu ko laablu woon ba ne ëmbut daal di ne doom ji juruma ko bu ne nag laablu woon naa ko mooy seetlu woon naa ko ba mu gis deret ma xam ne moom mi ëmbut gannaaw bi laa ko gis muy njaaloo te jotewu maag moom benn yoon ci diggante bi waaye teewul soxna si bi muy am doom moom métut diiru ëmb ni ki mu ne da ko taylu woon ba gis jigéen ji gis baax mu wane ni ëmbut gannaaw ba mu ne mu gis ko muy njaaloo ba waatoog moom ci kanam yoon ñu tekki nag yetti weer mbaa yent rek soxna si am doom dañ koy wax ne ko yaa ko jur ndax bu ñu nee ku ëmb du gis baax it loola daa gën a bari waaye néewunu moom rek kay am gis nga sax booy jàng ci àtte yi jaamu yàlla yi ñu lay wax jigéen bu ëmbee ba noppi gis baax na baax bay toll kon nag bu nee seetlu woon naa ko day ba gis ko mu gis baax moom sama soxna si moon ma ne ëmbut gannaaw bi ma gis ko muy njaaloo ñu daal di waatoo noonu ci kanam yoon waaye lañ ca teg nag moom ba mu ko laabaloog léegi ëmb am fi doom xaju fi ndax ñetti weer mbaa yent rek la dañ ko wax ne ko ba nga koy seetlu ba mu gis baax ba ni ëmbut booba ci ëmb la nekkoon doom ji kon sa dooma daa fekkoon boobu rek mu ëmb ci yow waaye li ñu ko déggee léegi nag bu fekkoon ne bi mu ne seetlu woon naa ko mu wóor mu ne gis na baax moom mi ëmbut te gannaaw ba jotiwu ma ak moom dara ba bi ma ko gisee mu njaaloo ma waatoog moom ci kanam yoon fekkoon dañ caa tegaat diir boo xam ne mat na gën jaa néewi ëmb muy juróom benn weer yu manque juróomi fan mbaa lu ko ëpp moom day wax ne juruma ko du sama doom ñu ne ko wax nga dëgg du sa doom liy waral jëkkër ji waatoon te soxnaam ci kanam yoon waatoo gi ñu wax mu yóbboonte yaar la benn bi mooy mu ne gis na ko muy njaaloo te moom nga weesu léegi ñaaral bi nag mooy soxna sa ëmb mbaa soxna sa am doom mu ne juruma ko lay tax nag mu mën a waatoonteeg moom ci ëmbam bii juruma ko mbaa doomam ji juruma ko juróomi mbir la ba ci njëkk mooy bañ ko ko mayee ak léegi moom ëmb am fi doom xaj na fi ndax mat na juróom benn weer yu manqué juróomi fan mbaa mu ëpp ko waaye dane moom bañ ko mayeeg léegi jotiwu rek moom kon ndagam ne bañ ma ko mayeeg léegi ëmb am fi doom xaj na fi waaye man jotiwu maag moom jotiwu maag moom dara kon bu waatee ne li mu ëmb juruma ko mbaa doom ji mu am juruma ko rek ñu jàpp ne du doomam doonte sax doom ja daa juddu andaajul bakkan mbaa doom ja andi woon na bakkan waaye ba mu ko yëg bay waat moom fekk na doom ja faatu wala sax fekk na soxna soosee muy soxnaam soosee faatu du tee na waat ci kanam yoon ndax loolaay tee ñu caw ko cawi ku yàq jarub soxnaam kon faatu doom ja mbaa faatu soxna sa du tee moom mu war a waat su waree rëbbonte rek faaw mu war a rëbbonte ñaareel bi mooy biñ ko ko mayee nee na jote na maag moom waaye nag soxna sa dañ caa teg diir boo xam ne ëmb am fa doom xaju fa nit ki ba mu jotee ak moom ñu teg ci rek weer mbaa yaari weer mbaa ñett jëm ñeent moom daal matul gën jaa ñooy ëmb soxna sa am doom joo xam ne ju mat sëkk la manqué wul dara kon day waat ci kanam yoon ne duruma ko ndax man baa jotee ak moom ak léegi ëmb fi doom ju mat sëkk am ko ñii xaju fi kon bu waatee ñu ne ko wax nga dëgg du sa doom loolu mooy li xillatin aw kasaratin nag mooy bi mu ne biñ ma ko mayee day jote na mag moom dañ caa teg nag biir bu yàgg-yàgg boo xam ne lu ëmb yàgg-yàgg-yàgg du ci àgg juddu nit ñu teg ca juróomi at soxna sa am doom dañ ko ko maye daal ak ba mu ne ca la jote woon ak moom ak léegi teg nañ ci juróomi at soxna ci door a am doom kon jëkkëram ji mën naa waat ci kanam yoon ne juruma ko ndax bu fekkoon ne ca jote ga ma jotee ak moom la balaa ak si si am doom ba tey ne bu fekkee dane sama soxna si dama ko seetlu woon ba wóor ma ne ëmbut te laa ko xamee mooy gis naa mu gis reegal mu am baaxub jigéen mu woon ma ne ëmbut boobaa léegi nag jotiwaatu wu feeg moom benn yoon buñ ca tegee biir boo xam ne ëmb ba am doom xaj na fa soxna sa door a am doom bu ko bëggee weddi faaw rek mu waat ne doom ji juruma ko faaw mu waat ko ci kanam yoon dëgg la sax nee na wóorlu woon na ko mu gis baax te boobaa léegi jotiwaatu feeg moom waaye diggante bi nag ëmb ba am ci doom xaj na fi su bëggee miim doom joojee faaw rek mu waat ko ci kanam yoon nda bu fekkoon ne ba mu ne seetlu woon naa ko ba mu gis baax mu wóor ma ne ëmbut digganteem ak bi mu amee doom ëmb ba am fi doom xaju fi ni ki yaari weer la mbaa ñett ni ñu ko waxee woon ci gannaaw dañuy jàpp ne gis gam ko gisoon mu gis baax teewu ko woon a ëmb dañuy jàpp ne doomam la ndax boobaa léegi gën jaa néegi ëmb dafay jaarut waaye li wax ni mooy baax da sittati ashhur ba mu ne wóorlu woon na ko teylu ko ba mu gis baax ak léegi mat na diiru ëmb te moom gannaaw bi jutu fi moom benn yoon loolu tax mu mën a waat ne juruma ko waaye bu fekkoon ne ba mu ne seetlu na ko léegi am bi ñu ko gisee mu am doom ju mat sukk te yaari weer mbaa ñett jëm noonu dañ koy wax ne ko la nga gisoon mu gis baax mu mel ni ëmbut teewut booba daa ëmboon rek ni ñu ko waxewoon ci gannaaw ba tey bu ne sama soxna si gannaaw bi mu amee doom mu wóor ma ne doom nekkul ci biiram jotewu maa ngi moom dara kon nag ndegam teg nañ ci biir boo xam ne ëmb am doom xaj na fi ba am doom damay waat ci kanam yoon ne juruma ko ñu ne ko wax nga dëgg mel ne day bëgg a tukki bitim réew bàyyi soxnaam mu am doom bu ngénte ko nga xam ne diggante boobu ak muy dem jotewut ak moom dara dam demee nag ci tukki ba ba am ci misaal juróom benn weer mbaalu ko ñu wax ko ne ko sa soxna sa am na doom kon moom mën naa sukkandiku ci ne baa koy bàyyi mu am doom day ak baa fa bàyyi ko diggante ba jotewu fa ak moom dara mu am doom nag kon juruma ko du sama doom bu fekkoon ne nag dafa bàyyi soxnaam mu am benn doom mu ngénte ko jotewut ak moom dara daal di tukki ñu tekki nag yetti weer mbaa yent jëm juróom waaye mëtul na benn jaa néewi diw ëmb day jàpp ne ay seex lañu dañoo sore rek waaye ñoom jële woon ku njëkk ba ngénte ko kii itam noonu la doomam la kon nga jàpp rek ne kuy bëgg a dem seetlu ne soxnaam si daal ci ñàkk seet la toll maanaam mi ngi toll ci régal gis baax mbaa soxnaam si day door a am doom rek jotewut ak moom dara daal di dem nag bàyyi ko kon buñ ko tegee diir boo xam ne ëmb ëmb bu yees ba am fa doom xaj na fa mën naa waat ne doom jooju nga xam ne moom la amaat sama gannaaw juruma ko su boobaa kenn du ko wax ne ko sa dooma kenn du ko ko bàyyale waaye nag bu diir ba gàttee gàttaay boo xam ne gën jaa néewi diru ëmb sax jaaru fa ni kii weer mbaa ñaari weer mbaa ñetti weer ba ci ñeenti jëm noonu rek la dañuy jàpp ne kii mujj a juddu ak ka juddu woon te bu yàgg boobee dañu di ay seex rek te soree mu ne nag anam yi mu la tuddal nga xam ne bu góor ji bëggee miim ne jurul doom ji faaw rek mu war a waat mu ne waat ga du ci mën a ñàkk ci kanam yoon bu soxna si nangu woon ne li sama jëkkër wax ne jurul kii dëgg la wax na dëgg juru ko itam faaw rek moom jëkkër ji mu war a waat li door ne du doomam bu nanguwut a waat ni ñu wax rek dañuy jàpp ne doomama soxnaam soosee nag moom ndegam nee na li sama jëkkër wax ne jurul kii wax na dëgg juru ko keneen a ko jur wees na ko jëtan moom jëtanum njaaloo ndax moo waxal boppam ne njaaloo na te jëkkëram jooje nag moom kenn du ko caw caw yi ku yàq derub soxnaam ndax soxna si moo waxal boppam ne doom jii jëkkëram jii juru ko bala ñoo caw kenn ci yàq derub jàmbur ci njaaloo day fekk kooku xamuñ ci moom dara caaxaan soxnaam si nag moom moo waxal boppam ne sama jëkkër jii jurul saa doom jii kon wax na ak ñàkk maandoom kon jëkkëram waxal ko ak ñàkk maandu du tax ñu caw ko am na nag sew sew boo xam ne bu mat a jàppa jàppa la foofu mooy góor gi bu fekkee digganteem ak soxnaam dara lii tee mu mën a joteeg moom doxu fa ma nga nekk ak moom ci kër ga mbaa mi ngi dem ak moom ak a dikk ñu ne mooy jëkkëram ñu ne kii mooy soxnaam saa yu ca tegee diir boo xam ne ëmb ba am fa doom xaj na fa rek bu soxna sa amee doom moom mi jëkkëram moom lañ koy bàyyale duñu ko bàyyale keneen lu may rek ñu ñëw ci kanam yoon sukkandikoo ci anam yu ñu wax benn ci ba waat ne du sama doom ñu door ne du doomam ci yoon waaye bu dul loolu dañuy jàpp ne doomam la daa waxam ne léegi tomb ya nga xam ne ca la jëkkër ji mën a sukkandikoo boo wax ne ëmb bii juruma ko mbaa doom ji juruma ko waat ci kanam yoon ñu ne ko wax nga dëgg muy wax nag ay tomb yoo xam ne moom jëkkër ja du jar muy waat ci kanam yoon ndax yoon du ko moomali mukk doom joojee bi ci jëkk mooy xam nañu daal duñ ko mayoon soxna si te nattabliwu ko boobaa léegi nag teguñu ci diir boo xam ne mat na diiru ëmb kookee ñu ko mayoon daal di am doom mel ne xam nañ ne dat sàngam lañ ko ko mayoon ñu teg ca ñaari weer mbaa ñett rek mu daal di am doom kenn du waat loo jëkkër ja ndax bu bëggoon wax ne sama doom la it yoon du ko nangu ndax ndegam gën jaa ñëwee diiru ëmb jaaru fi te moo juróom-benn weer yu manque juróomi fan bañ ko may ak léegi mu daal di am doom ca dëgg-dëgg kon du doomam kenn du ko waat loo naa ko waatal ne du sa doom te bëggoon waat ne maa ko jurit yoon du ko nangu ndax loolu mënta am gone ngoog ñaareel bi mooy jëkkër ja mën naa jote ak soxnaam sax waaye day gone goo xam ne wóor nañ ne mënta am doom agul ci mën a am doom gone donte mën naa jote di ko mayee soxna di soxna sa ëmbee itam di su ko ko bàyyele ñetteel ba mooy jëkkër ji xamoon nañ ne dañoo dagg ak sawukaayam ak yaari waa yàllaam mbaa boo li ñuy wax xoor ba siite càmmoñ ñaari waa yàlla yi dañuy am bu ci nekk ab xoor bu ci nekk dañuy wax ne nag xoor ba féete càmmoñ moom bu ko si dagg góor ga du mën a am doom kon nag bu ñu wóoree ne jigéen ji daa toogoon rek ak jëkkëram waaye jëkkëram mënta joteeg moom ci genn wet ndax dañoo dagg ab sawukaayam ak yaari waa yàlla mbaa boog xooru waa yàlla ba féete càmmoñ moom xamu ne ni jëkkëram jooju amewu ko kon jigéen jooju bu amee doom mbaa mu ëmb kenn du waat loo jëkkëram naa ko waatal ne li du sa doom bu bëggoon a waat ne sama dooma it yoon du ko nangu ndax dañu xam ne ci dëgg-dëgg mënta am doom bi mu ci teg nag mooy jigéen ji ëmb wax ne dañ maa mayoon jëkkër ju nekk ci barab sàngam ñu seet nag diggante ba sore sore goo xam ne la ñu xam ci aada daal sorewaay boobu buñ ñu fee daje ba jote fa ba bu fay ëmbee nii bay am doom da ko misaale moom ci jamono nga xam ne bàyyi koo fee dem fee taxu ko woon a yomb kii dëkkee ci gën jaa sori soow kacaas dëkk ci gën jaa sore penku jigéen ji am doom nag wax ne sama jëkkër ji ma may ca barab sàngam tam sore noonu moo jur sama doom ji ñu seet seet nag ci aada daal lañ xamoon moom diggante ñaari barab yooyu nañu soree ak nu ñuy fexee ba jote fi ñoom ñaar ba ëmb am seen diggante ba doom ji juddu mënta am kon bu ñu nangu ne jëkkëram joojee muy tuddoo moo jur doomam ji dañuy jàpp ne ca dëgg-dëgg juru ko bu kooka bëgg na waat ne sama dooma it deesu ko nangu bu doon suñu jamono ji nga xam ne nag moom bàyyi ko fii dem fee dafa yomb lool lool daanaka àdduna sépp xaw a mel ne benn barab yoon dana ko gëstu ba xam ca kanam àttekat ba lu mu cay àtte su ñu fi tuddee rek ci kanam àttekat ba bu fekkee ne àttekat amu fa kilifa jullit ne foofee mbaa mbooloom jullit ne ñooy daje rek def la war ca loolee mu ne nag balaa kenn tuumaal soxnaam bay waatu ngoon ci kanam yoon ci lu wóor la koy teg duñ nangu mu teg ko ci kaw njort dañoo waxoon ne balaa wax ne gis naa saa soxna muy njaaloo bu dee njàccaar nga xam du gumba dafay teg bëtam bu fekkee day gumba nag lu gumbay wóorloo muy làmb daj mbaa dégg goo xam ne wóor na ko ca lay sukkandiku mu ne gis rek soxnaam ak geneen góor ñu def yaram mu neen sàngoo menn mbàjj du tax mu daal di mën a waat ci kanam yoon ne gis naa saa soxna muy njaaloo ndax mën naa am jotewuñ dara ba tey moom góor gi muy def bu dee jotee soxnaam di def li ñuy wax dasal dasal mooy bu ndoxum man yi may bëgg génn mu génne sawukaay ba tur ko ci bitti ndax bañ mu ëmb bu nee wóor na ma sama soxna si moom daanaa joteeg moom waaye nag su ma daa joteeg moom ba ndox mi waaj a génn damay génne sawukaay bi ci bitti loola mënu caa sukkandiku ba ne lii mu ëmb juruma ko mbaa doomum ji juruma ko ndax ndoxum man yi ma mën naa rëcc jàll te du ko yëkk ba tey doom ja nuru keneen mbaa mu xees doom ja ñuul rek mënu caa sukkandiku ba ne juruma ko doom ja nuru keneen rek di tax mu ne kookee mu nuru moo ko jur man juruma ko daal di bëgg a waat ci kanam yoon mu xees pecc sax doom ja ñuul kukk it du tax mu mën a waat ne du sama doom bëgg koo dàq ci kanam yoon ba tey du joteeg moom bañ a dugal sawukaay ba fa mu war a dugg ci buntu jotewukaay ba xanaa di ko teg ci diggante yaari lutt yi rek ndax bañ mu am doom du tax mu sañawaat ne doom ji mu ëmb mbaa lii mu jur du sama doom bu ko wóoree ni moom ma nga tegoon sawukaay ba ci diggante yaari lupp yi waaye mel yu génnoon na rek la génn mën naa rogalaat ba jàll ca biir doom sosoo ca bu ne damaa teewul woon ba li war a génn ci man ci man yu génn ba noppi ma door a dem joteeg moom te bàyyi joteeg moom dara génnut kon xam naa ne lii mu ëmb mbaa lii mu jur du sama doom dañ koy teelu laaj ko ba xam ba mu teyloo ba wóor ko ne man yu ma génn na mu door a joteeg moom ndax gannaaw ba man yu ma génnee dafa dem sawi ba noppi door a joteeg moom wala daa daal di gaaw joteeg moom te fekk jotu faa sawi dañuy wax ne bu fekkoon demoon na sawi moom ñu jàpp ne lu desoon ca ban sawukaay ba ci man yu ba saw may génn loola dawoon nay génnaale moom itam kon bu ne damaa wóorlu ba xam ne man yu mi génn na ci sama sawukaay ma dem nag saw yu ba ñëw door a joteeg moom tabaay joteeg moom benn yoon boobee laa joteeg moom ci dara génnut mën naa waat kon ne doom ji juruma ko waaye bu fekkee ne ba mu fexee ba génne man yoom ci bitti laata muy dem di saw yi la daal di joteeg soxna sa day jàpp ne ba man yu may génn dara mën na caa des loo xam ne ba mu demee di joteeg soxna sa nag des woowee daa génn ci moom ca la doom joojee juddoo ci la doom joojee sosoo kon du mën a waat ne juruma ko bu waatee miim ne sama soxna si li mu ëmb juruma ko mbaa doomam ji juruma ko bu wëlbatikoo nag ne sama dooma daal di koy doomoo daañu ko géttan géttanu xaste maanaam jàpp ne yàq na derub soxnaam waxal ko njaaloo te sexut waaye nag bu wéree ne soxna su moom njaaloo woon na ba ñëpp xam ko mbaa gannaaw bi mu waatoon teeg moom ci kanam yoon sax la soxna si njaaloo ñu xam ne moom mii kat lékkul jigéen ju maandu kon góor googu wax ga mu wax ne doom ji ma weddi woon weddeetuma ko du tax ñu caw ko ngir ne daa yàq derub soxnaam ndax derum soxnaam xam ne ne mànduwul rek ku yàq ab deram itam wërti tax ñu caw la waaye gannaaw bu nangoo wax ne moo jur doom ja moom bu ñu xamul ci soxnaam soosee dox tànk caaxaan ci genn wet du ci njëkkaloo du ci gannaaw ba war koo caw moom jëkkëram jooju juróom-ñett fukki yar ndax yàq gi mu yàq derub soxnaam ba tey bu gisee soxnaam muy njaaloo na war rek ne gis naa sama soxna muy njaaloo te bañ a tudd góor ga nga xam ne moom la fekk muy njaaloog moom bu tuddee turu góor googee rek faaw ñu caw ko juróom-ñett fukki yar ndax yàq dum yàq jarub kookee mu ne moom la fekk ci soxnaam ndax dañuy bañ buñ mayee jëkkër ji mu sañ a waxaale kam fekk ci soxnaam tudd turu wa mën naa mere nit rek ñeme yàlla daal di ne diw laa fekk sama soxna loolu moo tax bu ñu nangu mu wax ne góor sàngam jaar ci turu moom laa fekk ci sama soxna muy njaaloog moom ndax ragal rek mu ñeme yàlla mere kenn daal di ne diw laa fekk ci sama soxna te dara amu ca kon bu ne diw laa fekk ci sama soxna muy njaaloo moom rek ñu war koo caw juróom-ñetti fukki yar ndax mu moytoo yàq derub jàmbur lu may nag kookee mu ne moom la fekk ci soxnaam fekk nañu xam ko ci def lu mel noonu moo xam ci njëkk mu koy waxal lii la moo xam ci gannaaw ba la gis nañu yàq ab deram ba noppi moom kookee kon duñu ko caw dara ndax bu fàtte ne bala ñoo caw kenn ne ko da nga yàq derub jàmbur day fekk ñu xam ci jàmbur boobee ak maandu maanaam xamuñ ca jàmbur boobee daal muy nuru doxtaan ci caaxaan waaye buñ ko ci xësee xam nag moom ba noppi kooku ko waxale tit du tax ñu caw la waaye nag foofu daañu fi taxaw di seetlu ne am na hadis bu ñëw ci albuxaari yi ibnu Abbas ne ku ñu wax Hilaal ibnu Umayya nee na woon sama soxna si daa koo gis muy njaaloo tudd turu kam doon njaalool te yëguñu fenn fu yonante bi cawe Hilaal moomu ne ko da nga yàq derub ka nga tudd moo tax mu naa xooriba hada bi hadisil buxaari yi wa xayrihi an ibni abbasin ann xilaala bna umaya qadafa mraata inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shariki bni sabha fa samma azaniya biha walam yunqal ann xilaalan xodda min ajlih am na ñu wax ne Malik dafa déggutoon hadiis boobu am na itam sharik moomee xilaal wax ni moom la fekkoon ci soxnaam dafa nekkoon ab yahoot doon julit bu gisee soxnaam mu ëmb mbaa soxnaam am doom tam nar a waat ne juru ko rek na ko daal di gaawee fa saasa bu ko yeexee doonte benn fan la du mën a demat ci kanam yoon di waatati dañu daal jàpp ne doom ja doomama kookee itam soxnaam rek la nam ko doone woon moo xam daa doonoon julit moo xam daa doonoon ku nekk ci diine yëfat mbaa nasaraan te it bu fekkee soxnaam soosee julit la woon te xamuñ ci moom dox tànk caaxaan ñu war ko géttan moom jëkkëram di géttanu xaste maanaam bu dee nag da ko tuumaal ci ne gis na ko muy njaaloo moom lañ ci sàtt rek mooy waxtu mu ko gisee na fekk muy soxnaam mbaa jamono yi ko fasee tam tollu ci idda ja lay tax ñu géttan ko géttanu xaste daal mooy mu ne gis na ko muy njaaloo fekk booba fekk gu ko woon mbaa gannaaw bu idda ji jeexee bu doo di wax naa gisoon naa ko muy njaaloo loolu moom dañ koy daal di gëtan gëtanu xaste ndegam xamuñ ci soxna sa doxtaan ci caaxaan waaye bu dee lam koy tuumaale mooy gis ko muy njaaloo yéexe taxaw ci waatoonte nga ci kanam yoon di yàq waatoonte ga sart ga mu teg nag moom gis ga muy njaaloo ak bëgg miim doom ja ñoo ci yemoo mooy ñàkk gaa joteeg moom gannaaw ba mu yëgee ne soxnaam sii ëmb na mbaa am na doom te nar na koo miim ci kanam yoon mbaa gis na ko muy njaaloo te nar na koo wax ci kanam yoon bu mu joteeg moom su xasee joteeg moom rek du mën a demat ci kanam yoon naa damay rëbboonteeg moom ndax nangam ak nangam da doon wax sarti rëbboonte lay tax ñu ne rëbboonte gi aw na ci yoon waxoon na ca benn ñaar bi nag mooy nee na faaw ñu indi ashhud naa seere bu dee moom jëkkër ji day wax ashhadu billahi doo caa teg la muy tuumaal soxna sax bu dee ba mu ko gisee mu njaaloo la day wax ashhadu billahi la ra'aytuha tazni ba mu yenti yoon bu dee dàq abu ba itam mbaa doom di juddu faaw mu tàmbalee ashhadu billahi ma hada alhamlu minni wala ma hada alwaladu minni ba muy ñeenti yoon mu juróomeelu ko nag li may wax su amut yàlla na rëbbum yàlla daanu ci sama kaw soxna sa it day tàmbalee ashhadu billahi teg ca miin la ko jëkkër ja tuumaal bu dee gisu njaaloo ga mu ne ashhadu billahi maa raani asni ba muy ñeenti yoon bu dee bu jëkkër ja ne juru doom yi mu ne ashhadu billahi inna hada alhamla minhu wala anna hada alhamla minhu ba muy ñeenti yoon mu juróomeelu ko nag li may wax su amut yàlla na merum yàlla daanu ci sama kaw nga xam ne kon ku ci nekk na nga wax ashhadu yenti yoon la ñuy juróomeeli nag moom lañ bokkaliwul ñu ko alquran la ñuy juróomeeli nag moom lañ bokkaliwul ñu ko alquran waxee wal xaamisatu an laanatullahi alayhi in kaana min alkaadibin ak wal xaamisatu an ghadaballahu alayha in kaana min assaadiqin dañuy sart faaw jëkkër ji daa mel ne mooy kalaame mooy njëkk a waat wax lu ñu waxee bu noppee nag soxna sa doon caa topp ca waat ga bu fekkoon ne nag soxna sa daa njëkk a waat kon dañuy wax jëkkër ja bu waatee ba noppi na soxna sa baamuwaat ndax jëkkër ji moo waroon a jiitu kon nag bu jiituwut soxna sa jiitu day mel ne soxna sa defagul dara bu jëkkër ji waatee ba noppi soxna sa baamuwaat la mu waatoon mu ne nag muy góor ga muy jigéen ja su fekkee dafa luu mënta wax na junj bañ xam la mu junj mbaa mu bind ndegam mën naa bind faaw itam na ko mbooloo teewe moo xam ne mënuñoo yées ñeent mu ne sopp nañ waatoo gi buñ koy def ñu def ko ci gannaaw jullik farata ndax ñu am ko ragal jajju kenn bañ caa waat lu amut ñu gën a taamu itam gannaaw julli takkusaan ndax ci ñi addis bi andee moom salaatul xasri julli takkusaan mooy as salaatu al wusta ñu sopp itam ñu xupp leen bu baax a baax xamal leen ne leen koo ci xam ne daal li nga bëgg a waat du dëgg nga ragal yàlla sa boroom nangu lay dëgg rek bu la dee géttan itam yàlla mën na caa jaare moom jéggal la moo gën di waat loo xam ne wóor na la ne awut du dëgg rawante na kenn ku ci ne bu àggee ci juróomeel ba dañu ne woon góor gi bu dee waat na mu juróomeele mooy li may waat bu du dëgg yàlla yàlla wàcc ci man ak rëbboom rëbb gu yàlla yàlla daanu ci sama kaw jigéen ja moom ji daaneele ca juróomeelu yoon ba li may wax bu du dëgg yàlla na merum yàlla daanu ci sama kaw kon nag kenn ku ci ne bu seeree yent yoon ba àgg ci juróomeel ba te lañ gën a taamoo nag ñu dal leen xuppaat wax leen ne leen tudd juróomeel boobu day ci lañ gën a ragale bu dee góor gi rëbbum yàlla ma daanu ci kawam ndegam nekkul ci dëgg bu dee jigéen ji it tudd baatu juróomeel bi ci lañ gën a ragal yàlla wàcc ci kawam meram moomee te mu ne kenn ku ci ne dañuy seet fa mu dëm war faa ragal waat lu amut ñu yóbbu ko mu waate foofa bu dee ab julit ca jumaa ja mbaa ci jàkka ja foofee bu fekkee jumaa amu fa foofa lañ ko yóbbu bu dee ko fasanteel wëlëre bu nekk ci diine yoxoot mbaa nasaraan dañ ko yóbbu fa nga xam ne mooy jaamukaay ba mu gëm mu waate foofa julit bi bu takkee yahood mbaa nasaraan nga xam ne soxnaam moom du julit bu ñu waatee nii ba àggal soxnaam soosee nga xam du julit ragal a waat kon lañ koy tuumaal day dëgg waaye yoon yoonu lislaam du ko jëtan ndax moom du julit dañ ko yar rek ba noppi nag delloo ko ñoom bokkul diine ñu seet luñ koy def ñu def ko ko bu góor gi ne sama soxna sii daa ko fekk mook geneen góor ñu sangoo menn mbalaan mbaa ñu def yaramu neen agul nag ci wax ne gis na ko muy njaaloo dañ koy yar rek moom jëkkër jooju waaye deesu ko gétan te loolu kat bu ko waxalan koo xam di soxnaam mu ñëw rek ne diw diw mu jigéen sàngam daa ko fekk moo geneen góor ñu bokk sàngoo menn mbalaan mbaa daal ni fekk ñu def yaramu neen dañ koy daal di gétan gétanu xaste jàpp ne yàq na deru jigéen jooju ak góor googee day jàpp ne góor moom bu ko feeñu ci soxnaam loo xam ne day nuru njaaloo rek faa mu metti ko ndax yàq askanam yàq ay doomam moo tax nag kon boo waxee ne soxnaam gisu ko sax ci dëgg-dëgg muy njaaloo waaye gis na ko moo geneen góor ñu bokk sàngoo menn mbalaan mbaa ñu bokk def yaramu neen bu ko waxee ñu yar ko te bañ koo gétan ngir nu xaste waaye saa yu góor waxee jaambur bu jigéen maanaam koo xam ne soxnaam ne daa koo gis moo geneen góor ñu def yaramu neen ñoom ñaar ba daal di fekk ñu sàngoo menn malaan ñu daal koy gétan moom nu wax loolu gétanu xaste jàpp ne daa yàq derut ñooñee bu góor gi ne sama soxna si daa ku ko ëpp doole ba joteeg moom xam naa ne moom neexu ko waaye kooku da koo siif baa mu ne sama soxna si daam ko ko jaawaleeg man ba joteeg moom mu ne kon dañuy seet bu fekkee loola sax na ci ay seere mbaa nit ñi màrsa na ci xam ko ñu ne ko yow jëkkër ji waatal loolu nga wax moom rek mooy rëbboo mooy moom rek mooy waat seere ne soxnaam si daam ko ko ëpp doole ba joteeg moom te neexu ko mbaa daam ko ko jaawaleeg man ba joteeg moom ndegam daal moom ay seere seere na ko mbaa lu leer la ba nit ñi xam ko soxna sa nangu ak soxna sa gàntu weddi ña ci yemoo moom jëkkër ji rek mooy waat loolu mu bàyyi ko soxnaam kenn du leen tàggale li tax nag muy waat mooy bu ca doom juddoo mu mën a wax ne juruma ko ca jote bu aay boobee la doom ji amee jigéen doo xam ne gone la ca at jëmb ji nag mënees naa joteeg moom bu jëkkëram ne gis naa ko muy ndaaloo moom jëkkëram rek mooy waat dafa rëbboo gi ñu waxoon waaye soxnaam suuf si di gone ci at bi ca waatante tey du ñu leen tàggale bu fekkoon ne sax soxnaam suuf si gone nam doone gone ci at noonu la tuutee ba mënu si ta jotee moom bu jëkkëram ne gis naa ko muy njaaloo it moom jëkkër ja kenn du ko ca géttan te du jaram yu waat dara naa gis naa ko muy njaaloo ndax ndegam moom boo ko daan ndawee ndawee ba mënu si ta jotee moom gàcce du ko ca taqe dafa tudd yett yoo xam ne moom góor gi lañ ne moom rek mooy rëbboo maanaam mooy waat mu ne nag yetti masal yooyu nga wax bu ci jëkkër ji bañee ne du ma waat itam du ma rëbboo du tax ñu gétan ko dangaa waxoon ne bu jëkkër ji ne sama soxna sii daa am ku ko ëpp doole ba joteeg moom jote bu aay baa mu ne sama soxna sii daa am ku ko jaawaleeg man ba joteeg moom da nga ne woon bu fekkee ne loola ay seere seere na ko mbaa day lu leer ba ñëpp xam ko nit ñi xam ko moom góor gi rek mooy waat jigéen ja moom du ca waatante li nag mooy bu fekkee ne góor gi wax na loolu waaye taxul nag mu am ay seere nekkul itam lu leer ba nit ñi xam ko kon moo xam jigéen ja dëggal na la góor ga wax moom mu ñàkk koo dëggalal li li wax amut ñooy moo faaw rek ñu war a rëbboonte ñoom ñaar su boobaa nag jigéen ji moom bu dee miim lii lay wax bu dee ba mu nangoo waxi góor ga day wax ne seere naa ne njaalowuma li sama jëkkër wax mooy dëgg dañ maa ëpp doole rek mbaa dañu maa jaawale rek su fekkee daa weddi nag la góor ga wax bu dee waat day wax ne seere naa ci yàlla ne kenn ëpp ma doole bay joteeg man kenn itam jaawali wu maag suma jëkkër bay joteeg man gannaaw bu góor ga waatee wax loolee ne sama soxna si seere naa ne daa am ku ko ëpp doole ba siif ko joteeg moom mbaa seere naa ne daa am ku ko jaawaleeg man ba joteeg moom soxna sa bu dee waat li nga dégg léegi noona lay waxee kenn ku ci ne it waxee loola yent yoon la muy juróomeele mooy lam daan juróomeele bu dee góor ga mu juróomeele su ma waxul dëgg rëbbum yàlla yàlla na daanu ci sama kaw jigéen ji juróomeele su ma waxul dëgg merum yàlla yàlla na daanu ci sama kaw koo ci xam ne nag ragal ngaa waat ñu géttan la waaye dañuy wax ne góor ji moom fañ koy géttane mooy bu jigéen ji weddee la waxoon ne sama soxna si dañ ko ëpp doole ba joteeg moom baa dañ koy jaawaleeg man ba joteeg moom waaye bu fekkee soxna sa dëggal na la wax ne wax na dëgg de dañ maa ëpp doole ba joteeg man mbaa dañ maa jaawale ba joteeg man kon bu góor ga ragalee waat loolu itam du tax ñu gëtan góor ga ndax soxna si moom dëggal na la góor ga wax góor ga moom bul fàtte ne waat ga muy waat loola lan koy jariñ mooy su ca doom juddoo itam desu ko ko bàyyale bu mën a mim ne du sama doom juruma ko soxna si nag moom la ko waat gay jariñ mooy ñu bañ koo géttan ndax bu ragalee waat nee nañ faaw ñu war koo géttan waatoo gi ñu wax bu ñu ko defee ci kanam yoon jëkkër jëg jabar ji jëkkër ji moom bu waatee ni ko yoon waxe bu fekkee soxnaam soosee nekkoon gor say jullit it dagam ñeme naa waat li mu ko taqal rek kenn du ko géttan géttanu xaste bu fekkee soxnaam soosee nekkoon jaam mbaa yahud mbaa nasaraan it kenn du ko yar ci li mu ko waxal bu fekkee ne nag ragal naa waat te fekk soxnaam soosee nekkoon gor di jullit moom jëkkër ñu war ko géttan géttanu xas soxnaam soosee taw ko juróom-ñett fukki yar bu soxnaam soosee fekkoon nag muy jaam mbaa muy bokk ci diine yahud mbaa nasaraan it ñu war koo yar moom jëkkër ji bu ko ëllëgee bu waxale ci soxnaam lu mel noonu te tegu ko fu wóor tayit nag lu ca mën di juddoo ci doom kenn du ko ko bàyyele ndax ndega moom waat na li mu wax rek moom jëkkër ji lu ca man di amee ci wàlluk doom kenn du ko ko bàyyele gannaaw bu góor ga rëbboo noonee mooy waat ba àggal soxna sa itam su waatee noonee wàcc dañ koy wax ne ko araam nga ci sa jëkkër ji faw lu yàgg-yàgg ci dund ci àdduna du ngeen mën a seqati mukk mukk ab sëy bu soxna sa nekkoon jaam itam jëkkër ja wëlbatiku moom ko ci jënd mbaa ci dond mbaa leneen it araam na ko rek faaw araamuk doppetu donte it loolee ñu yaakaaru ne ëmb la daal di moom yàgg ñu xam ne moom kat biir bee funki woon rek waaye du ëmb waaye xas nañu waat ci yoon nii ba noppi rek jeex na faaw rek jigéen jooju araam ci jëkkëram araamuk faaw faaw doppet doppet ba tey nag ndegam jigéen bi waat na rëbboonte ni jëkkëram def kenn du ko jëtan jëtanut njaaloo bu dee ku nekk ci diine yowoot mbaa nasaraan it kenn du ko yar waaye nag bu ragalee waat moom gannaaw ba jëkkër ja waatee day jàpp ne kon njaaloo gi am na bu wér a wér bu dee julit moo xam gor la moo xam jaam la ñu jëtan ko géttanuk njaaloo bu dee ku bokk ci diine yowoot mbaa nasaraan ñu yar ko te jébbal ko nag ñoom bokkal diine ñu seet lañ cey defaat ci gannaaw ba su fekkee ëmb ba mbaa la mu jur dafa nekkutoon benn xanaa di ay seex bu wëlbatikoo ne seexam yi kenn ki maa ko jur te nanguwuta wax ne ka ca des moo ko jur yoon da koy wax ne ko ndegam ay seex lañu boo xasee doomoo kenn rek doomoo nga ñaar ñëpp mën laa doon bàyyib kee te doo doon bàyyib ka ca des kon buñ di ay seex gannaaw ba waatee ci kanam yoon ne jurut la jigéen ja jur mbaalam ëmb bu wëlbatikoo ne kenn kii ci seex yi maa ko jur ñu ne ko yaa jur ñaar ñëpp ba noppi nag bul fàtte ñu jëtan ko ci la mu yàq derub soxnaam waatoo moom ci kanam yoon ne durut li mu ëmb ëlbatiku nagu koo jur waxoon la ne la yàq ab deram la lu may nag fekkoon ñu xam soxnaam ci ñàkk a téye boppam di dox tànki caaxaan moo xam ci njëkk muy waatoog moom la moo xam ci gannaaw muy waatoog moom la la ñu waxoon rek koo xamee moom xas na yàq ab deram ku wax ne dafa njaaloo it bu ñu la caw naa la yàq nga ab deram ndax moom moo yàq derub boppam bu soxnaam ëmbee niñ ko waxe woon mu ne jurul ëmb bi daal di waatoog moom ci kanam yoon soxna si am benn doom gannaaw bañ waatoo ci kanam yoon ba noppi bañ teg ci juróom benn weer maanaam daal loo xam ne ëmb xaj na fa rek daal la bëgg a wax mu juraat keneen mu ne kon bu jëkkër ji ne kam njëkk na jur moom ca dëgg-dëgg sama dooma du tax ñu ne ko ki mujj jur itam sa dooma ndax ndegam seen diggante moom mat na diirub ëmb day jàpp ne ci mujjee juddu ak ka njëkk a juddu jotewuñ dara tegam diggante bi diiru ëmb jaar na fi rek duñu ay seex jotewuñ dara li ñu jàpp rek mooy ki mujj juddu moom ak njaaloo la